salaamaaleykum mbokk internetu Dakar. Ah, tey ñu ngi fi ah, Waxinaan seet gars yi xool seen inondation yi naka lañ ko dundee duñ def loolu ànd sama caméraman ak sama chauffeur bi dugg ñu laaj ah, gars yi naka lañ dundee inondation bi ak ndox mi nu mel lu nekk mun cee am feebar tamit mun cee am ak xale yi jaar di ci xuus rek ak jigéen ñoo xam ne dañuy génn soxna dem marché di pour jox seen bi pour ñu pour ñu dund duñ defee loolu jox gars yi laaj nañ ñu naka lañ gisee inondation yi aja jee ñu dem ci biir tali bi lañu commencé woon lañ xoos gasal ñu fii ñi ngi bëgg a dee nelawatuñ guddi nelawatuñ bëccëg Macky Sall bu fekk mi ngi koy dégg nañu continuer tali bi defal ñu canal ñu am jàmm waaye tànk li mi ngi fi tali bee yeggut li ñu xoos moo ñu sonal duñ am jàmm tey duñ nelaw guddi suñu jaboot duñ nelaw biig si tali fii lañ fanaan ba bët set suñu njaboot fanaan ci ndox bi ba bët set sonn nañ Macky Sall tant que yow ñuy dëgg yaa sonn bi moo ñu rey boo xoolee dafa ñëw gas mu ne ni oh, tëli lan la ñuy defaral fii pour pant bi ñëw fii si terre bi muy dem loolu loolu la ñu waxoon ba ñu waxee loolu nag ñun nag du nee yaakaar yaakaar ni yaakaar ni ñoom bu ñu ko gasee fële day ñëw def tëli bi léegi ba ñu toogee nag ñun nag man lii bett moom quoi parce que xamoon naa ne moom taw bii ñëw moom ñuy sonn. parce que mais mais pourquoi yéen loolu noonu teeloo leen koo lijjanti wala muy yegg fii. waaw boo xoolee teel na teel na parce que boo xoolee waa ji ba koy gas ñun xamuñu waa commune ñu ñoo ko sax ñun waaw ku si mel ne nag maire yi def na lu mën ku si mel ne Ablaye Timbo may may noonu ay camion yu bëri ñuy sëq fii Isaaxa lii mënu si dara boo xoolee oto oto mi ngi ngàcc oto Ablaye Timbo mi ngi ngàcc waaye dañ see mënu dara xamal lan la solution bi lan mooy maanaam télé bi li mu mënoon ñu def ko ñu def ko maanaam lu ñu ko sëqeewoo muy pant di dem sinon ñu télé bi bi. waaw kii bi euh, gars yi dañoo commencé tali bi te ndox bi fële booru police ba lay jógee di ñëw ñoom ñu bëgg a jëlee ndox bi fii yóbbu ko police ba léegi bu ñaari ndox yi dajee nu ñuy def moo ñu waral fii ndox bi fii la daan jóge yëpp di jaar nii di dem ñoom léegi ñu bëgg a wëlbati ndox mi mu dem taliba te tali ba dafa sut fii nañ ñu dimbale defal ñu tali bi tali bi jóge fii dem ba ca raay ba ak tali bi jóge fii dem ca suufu pont ba buñ ko amee rek am nañ jàmm mais tant que defuñu ko fii inondé la ñuy dëkk bëgguñu dara lu dul tali bii ñëw. naka ngeen dundee inondation bi démb ak taw gu métti bi. ah métti rek soxna sëñ bi métti rek métti na lool man mii ngay waxal Pikine laa juddoo fi laa yaroo fi laa màggee ba toll ni ma toll mais inondation euh, ndox mi nga gis ni depuis 2005 moom moo dellu siwaat nii ñu toll nii sama néeg dafa fees dell ak ndox. gis nga yéen a yéen a ko fi yéen a ko ku ñu dimbali ñun ñoo mobiliser di gas pax di videl suñu bopp. c'est très difficile ah depuis hier quoi donc c'est comme ça quoi donc man maa doon jaay fii mais auparavant tëj quoi dem ñibbi parce que gars yi mënuñu woon ñëw quoi parce dañ doon xuus ñeneen duñ am fuñ jaar quoi. bu tawatee rek ñëw def ay canaux donc bu ñu fi defee ay canaux bu tawee rek ndox mi day jaar canaux yi dem mais lii nii ça n'a pas de seen doole moo si di manque manque na ba sonn ñun daal sonn nañ ku ñu dimbali si ndox mi jël sonn nañ suñuy njaboot sonn nañ ñu na yeggale tali bi ñu am jàmm waaye manque tali bi nekk fi canal ñëw fi ñii rek démb tali ndox mi daa maase woon ba raay ba yaa ngi may dégg njaboot gu sew lañ am sonn nañ daal boo xoolee politiciens yi fu lay xaaree mooy lu mel nii parce que boo xoolee li mooy lépp li mooy liggéey daal parce que bi nga fexe mu jug fi boo xoolee ñi ñu toog boo xoolee kenn taawul mooy parce que taw bu amee moom kenn nalaw ñuy taa yow mi nekk sa sa kër boo xoolee L plus 2 nag nekk si jàmm soo koñ taawul yow doo yëg nawet bi. fii ndox mi war a jaar ah yéen a ko bëtt wala dañ leen ko bëttal bu ndox mi jaar. fee bi moo ko bënn mais waa koñ bi fii ba nga ko bënnee dafa am ñoo xam ne day fii këpp malit ñoom ñoo fatum fii nii boo xoolee ñun ñun ñun ñoo ko gàbb ñun ñoo ko gàbb suñuy peel ak suñuy pik jaay na ndox bi di dem. instant boo xoolee teel yi fii nii boo xoolee mi ngi fees sax mi ngi fees ndax groupe bu euh, popage bu mag bi ta kenn ko bu nga ko fii day xaw a fees day day indiwaat léegi boo xoolee koñ bi tamit ñoom ñoo war a jug bañ fii dafa këpp mbalit parce que mbalit bi mooy fatt kii bi moo tax ndox bi waaw mais lu ñuy daal mooy fii daal bu ñu ko mënal bu ñu ko mënul defal defal télé ñu sëq ko nu mu mu malaat ko. jàppale ñu ci ñëw fii maire Issakha Diop mu ngi def li mu man guddi gu jot fii lay nekk di ñëw. mu ngi def li mu man moom mais ñeneen ñi gisuñu leen Isaaxa Diop daal la xam ñun mu ngi jàppale ñu waaw waaw pavage bu mag waaw pavage bu mag ñu ñëw dagal ñu fii fii lay jaar fii mooy centralu ndox bi feebar rek feebar bi bari na mbas mi bari na feebar bi sunu njaboot lañ fi nekkal xale yi lañu xuus si biir ndox mi te sonn nañ nañuy jàppale yeggala ñu tale bi ndox mi jóge fi ñun daal sonn nañ wa wax ba bëgg a dee biig man mii nelawuma xoolal saako yi sama buntu kër fën sama fenêtre ngi nii minute bu jot ma yeewu xool ndax ndox mi mu ngi dugg booy yii ci ndox mi la ñu fanaan ñii di manq dafa metti nañ ñu dimbale ci goudron bi rek tali bi rek buñ ñu ko defalee rek mu baax nañ nañ ñu jëlal pante bi rek mu dem fële li laay war a suul Isaaxa nag moom mi ngi liggéey li mu man gisuñu ñeneen ku dul Isaaxa moom doong lañ fiy gërëm 2005 bi inondation bi bi ndox mi bare boobu temps boobu ba léegi mi ngi soog a amaat mais gis nga fi ñu toll nii laa fii fii fii ñu toll nii fi ñu toll nii gis ñu benn autorité ñun waa koñ bi ñoo ci nekkal suñu bopp di gas gis nga di ñuy gasee pompe pompe bee ngay seen sénégalais ko fi teg pour mën pour mën ko évacuer pour mu dem waaw suñu dëkkandoo ko fi teg. fii daal boo xoolee nam noo ndax mu laa bu parce que waa dafay ñëw fi ne nii dafay gas euh, dafay def koñ bi fii tëli ndox bi bu ñëwee après day aw fii dem. fekk na boobu ñu sëq nañ ko fi yëpp ñun waa koñ bi yëpp mhm. ñu ne booy yëpp dëkk fi ñëw sëq fi ba mu kawee léegi ndox bu Moussa ñëw fi day xaw a taawaay après dafay dem léegi nag ren nag boo xoolee kàmb gi moo sonal oto na ba ñëw fi wàq suñu koñ bi yëpp. mais mais mais mais mais kàmb gi lan moo waral euh, ñu gas fii ci kàmb gi. kàmb gi dañoo wax waaw loolu loolu la ñu waxoon dañoo waxoon dañuy def fi ay terre waaw. boo xoolee dañoo ndax daal dañoo ñëw fi ne nii. dañuy def fi benn euh, benn benn tëli boo xam ne carrément ndox bi dafay jaar dem si terre bi mhm. loolu loolu la ñu wax ñu jékki-jékki wax wax koñ bi yëpp ba ñu wax koñ bi waaye sa ñëw naa pañe ko na ko waaye sa waaye lay wax nii mu ne ah yéen nga xam naa sonn ngeen toog waaye xam naa da leen dafa foo xam yëpp dara nekk si dëgg mhm. moo ngi nii boo xoolee suñu chef de quartier bi moo ngi nii zone la mhm. jàmbaar la dem ba léegi boo xoolee moom moo nekk ñu si ndox bi mais mais mais mais est ce est ce euh, que jéem nga def benn médiation dem xool maire bi wala yooyu pour wax ko. maire bi boo sax moom ku si mel ne maire Isaaxa sax dem def na tuuti lu mu mën waaye mais des na quoi. da nga jàpp liggéey bi dafa des. non des na des na Ablaye moom mënu sa dara waaye mais maire Isaaxa ñoom ñëpp doon war a ñëw carrément jàppale ñu benn groupe bu mag. popas boo xam ne da nga koy teg fii muy ngàcc ndox boo xoolee fi may central bi ndox bi yëpp boo xoolee fii lay waaw. maire Abdoulaye Touma moom def nañ fii lu mu lu bëri boo xoolee may nañu suuf daaw fii nu këpp ñu sëx ko ba mu kawee mais nag nañ ñëwaat en tout cas loxo yaa ma dégg ñu loolu lay saaku si moom nu benn moto boo xam ne dina mën a poppaas ndox bi yëpp mu dem ndax fii essant yi nii xoolee démb daa fees ba dugg si dem fii moom daa fees ba dugg si gën a boulangerie bi essant yi nii mhm. la ngay def da naka ngeen ko dundee ah, ngeen yow xale yu jigéen war a dem bi marché di jaar ci naka ngeen dundee loolu sonn rek xale yu góor ñëpp a sonn a sonn ñun moom dem dem ina ba léegi ñu ngi ni nalawunu asan boo xoolee ay pik lañ ay peel dëkk ak gàbb ba ndox bi xaw a wàññeeku nii suñu kii baa ngi nii moo ngi nii boo xoolee essence bu ngi koy jënee fu mu kat jëne essence na gars yi ñëw jàppalanu fii essence boo xoolee essence la bi bu ñëw boo xoolee fii yem gars yi ñu ñoo fi nekk kii fii la dëkk man fii laa dëkk kii nii dëkk fii ñu ñoo ñëw jénn boo xoolee jàpp si dafa si ku si mel ne Issa Meng ak yooyu jàpp na si baax a baax a baax a baax Seydou dafa lu lu mën yëpp mu ngi ne ay oto mais nag na gën a na gën a yokk loxoom daal fii daal mooy central bi daal. affaire moom sa gox la amee na ku nekk fu dee ko rek jàpp ci. ñu gis taataa dafa metti ndox nu nee ngi dugg ci biir ndox mi feebar bu nekk mun na cee am naka ngeen dundee seen famille euh, ak seen i soxna ak seen i doom bi jaar ci biir ndox mi naka ngeen ko dundee métti wallaahi xanaa lu ñu tàmm def la rek dañ koo tàmm lool macha allah moo tax su bu ñëwee rek du ñu jaaxal daal lu taw bari bari bari macha allah dañ koy dañ ciy nekk rek bokkuñ ci fekk fekk ñu ci waaw loolu rek la mais ñu ngi ci daal ñu toll nii ñu ngi ci kii ak tout temps ki moom da ngay daal du fat ci biir rek ñi ñu daal ci ñu daal mais alhamdulilah rabbil alamin daal alhamdulilah ban message ngay joxe autorité yi ku mel ni seen maire beeg yeneen. waaw sunu maire moom euh, Isaaxa Diop la ñuy wax Abdoulaye ci mboomi fi mais ñoom moom dafa naan boo ñëwee da nga foofu la ëppee daanaka ndox mi dafa dafa wàccandoo ëpp ñu dool ñu ñëpp ñu ñu ñaax leen rek te xam ne affaire baa ngi nii lii la rek fu ñu nekk ñu jëm cee jàpp ñeneen ñu génn jàpp ci rek mu lépp leer mais nañu gën a liggéey daal ñoom nañ gën a liggéey liggéey des na liggéey moom des na moom wax dëgg yàlla mais nañ gën a jàpp moom macha allah daal mu ngi jéem lu bare bare bare bare moto pompe yi fi tàkk ak yëpp dafa naa ni macha allah moom moo ci moo moo ko moo ay jéegoom la waaw kon ñu sante ko yàlla bu baax rek incha allah bu ko ku makki jàppalee rek mu gën a dem daal. dem ba léegi nalawuñu parce que mënuñoo nalaw amuñu fuñ buñ nalawee tamit suñu xel du dal suñu doom yi war a jàngi arab mënuñoo fexe ba jàngi parce que ndox maa ngi nii tamit mënuñoo jàngi suñu chef de quartier baa ngi nii dem ba léegi moom tamit nalawul mi ngi jàpp ci liggéey bi. defar seen fo tali. leen xoosal ñu suñu kër gi xoosal ñu suñu koñ bi yëpp. yamala fee seen tali karam dem nañ nekk ci leen neex nag. nee na yaakaar ni yéen danañ ñëw jël seen tali kii ba pare jël seen koñ dem dem seen yoon. def voilà def def leen neex xoosal ñu suñu bi bàyyi ñu bàyyi ñu fii ak lii léegi ñun nag ñun ñooy sacrifié wu defar suñu koñ quoi parce que ñun xaartuñu mer xaartuñu kenn ñoom buñ ñu gisee bu ñu gisee bu ñu amee xol yërmande nañ ñëw jàpp ci combat bi mais ñun xaar ñu leen quoi. naka nga gisee inondation ndox mi ni muy mel lu ne mën ñu cee dugg feebar bu nekk mun na cee am ngeen war a yeewu dem marché ak seen doom yi naka ngeen dundee loolu. metti torop parce que ngi doon jox waxi corona waxatuñ dara ñu ngi nii indi ñu inondation léegi duñ faale corona parce que ñun tamit ñun dal rek dañ naan tamit ñoom la quoi tamit parce que lii ñoom seen faute la fii mooy central bi ndox bi day jóge ci koñ bi ak doole di ñëw du jóge fii ak doole di ñëw def nii ak doole di ñëw lépp fii lay tase ñun duñu obligé lu dul sotti ko la ñu gën a rey ndax lépp bu doon taw nii la daan def daaw da ngay xëy rek nekk ci jàmm mais depuis loolu moom mooy loolu la ko ngay wax seen autorité yi nekk fii ak seen maire bi leen war a jàppal gisee nañ ñu jàppale rek ci lii ndax ñoom fi lañ dëkk sori wuñu ah, rek jeunesse bi moom wax dëgg yàlla jeunesse waa Xinaan ñoom ay jàmbaar daal ndax ay jàmbaar ndax jóg nañ ànd ak man ñu nekk si ñun nag wax dëgg yàlla man li may wax rek man faraluma di xaar autorité dama siine ba ñëw fekk ma fi ku si ñëw nag ah boo ñëwee rek ma xam ne ñëw nga waaye ñun moom dama si ba ker ñëw daal. mais essayé ñu def médiation dama jéem a xool gis maire bi waxtu waxtaan ak moom parce que lii nii wóorul. waaw effectivement waxtaan nañ ak moom ba doon lañ def sax ay réunion. TRD avant inondation bi du xool nañ lañ koy kiiyee. mais xëy na tamit xam nga comme état moom seen yëpp moom day xaw a yéex tuuti te du ñu mën a def lépp population bi tamit dañuy jóg tamit xaw see jàpp nga xamante ni ñoom bu ñu ñëwee ah xam ne kat ñoom it lii population war def comme ñoom ñoo la waroon def te ñun ñun ñoom la ñuy defaral ñoom tamit bu ñëwee tamit ñu feddali ko la rek rek. waaw en tant que chef de quartier euh, nga nekk fii sa quartier di mel nii nga yeew di gis say euh, say euh, say yaay ak say doom ak say say maamu di jaay ci ndox bi en tant que yooyu en tant que chef de nga dundee loolu. waaw mais dañuy sant yàlla rek parce bu ñu sañoon moom mel ni yeneen quartier yi man su ma sama quartier mooy gën si àdduna su ma sañoon metti nag wax dëgg yàlla sama yaay yi da gis kër goo xamante ni da nga koy dugg man presque boo dee xool dañ naan biig ba léegi sax mais man daanaka ba mu ba mu inondé ba mu tawee ba léegi man aw maay nelaw lépp maa ngi si terrain bi du xool population bi ñu xal sa am problème ma jóg génne fa génne jeunes yi ñu jëm a jog ñu yow loolu lañ jëm di génne suñu doole génne suñu alal ah def si tamit wax dëgg yàlla parce que loolu moom moo ñu war. ak tamit modeste bi nga def ak e, e, exemplaire bi nga def nga nekk chef de quartier waroon taxaw seetaan nga ñëw jàpp ak ñoom nit ñi ci biir ah, ci biir liggéey bi noonu naka nga ko dundee. waaw xam nga kat tey fi nekk population bi ñoom ñoo ma fi teg ñoom liñ ma fi lii maanaam da see bokk waaw man liñ ma fi tegee lii da see bokk ñëw assisté leen bu dee safaan ba ma ñëw bu dee naqar ma ñëw bu dee bànneex ma ñëw ndax man dem fi laa juddoo fi laa yoroo fi laa màggee man ak ñoom ñoo bokk rek niñ ma fi tegee man tamit noonu lañ fi tegee keneen waaw loolu rek la mais lu dara quoi wax dëgg yàlla mais metti na daal